julli ñu di ci tofal fadailu julli ay ngëneelam mbaa nga tudde ko ay mandubaat mbaa nga tudde ko ay mustahabaat wa fadailuha ay ngëneelam moom julli raful yadayni yëkkati ñaari loxo <coughs> indal ihraami fa ngay armale xataa tuqaabilaa ba ñu jàkkaarloog al udunayni ñaari nopp yi tolloog moom nga ni boole koog allahu akbar loolu fadila la gi soo ko bàyyee kenn du ni bàyyi ngëb sunna dañu naan bàyyi ngëb mandu wa qawlul maamuumi ak waxu maamuum wal faddi ak kenn ak julleem ñuy wax naan rabbana walaka alhamdu ah. rabbana walaka alhamdu it fadila la sami allahu liman xamida ci kenn ak imaam sunna la wa taaminu wax amin <coughs> baada alfatixati ci gannaaw fatixa ku koy wax lil faddi ñeel ku beroog julleem wal maamuumi ak maamuum ah, kookoot fadila la wala yaquluha du wax amin jooju al imaamu imaam illa fi qiraati sir lu dul ci bi muy jàng-jàngi yalu su dee jàng-jàngi biral bu mu ko bu mu wax amin ci madhab bi maamoom ya ñooy wax amin suñu déggee mu ne wala daalin wa tasbixu ak saba fi rukuuci ci rukoo wa ducaawu ak ñaan fi sujoodi ci sujood amma ci rukoo saba lañ ca bëgg ñaan moom sib nañu ko ca dégg nga sujjoot lañu bëgg ñaan li qawlihi lil xadiisi amma fi rukoo amma rukuu fa azimu fiihi rabba wa amma sujuudu fadcu fiihi bima ahbabtum fa qaminun an yustajaaba lakum amma rukoo moom sàbbaal leen ci borom bi màggal leen ko nga ni subhaanallahi alazim azimoo la wax kon azim ngay tudd nga ne subhaana rabbiyal azim subhaana rabbiyal azim def ko ñetti yoon mbaa lu ëpp ñetti yoon ah sujjóot subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal a'la wa tatwiilul qiraa'ati